booloo bi maa ngi leen di nuyu yéen sa tur ak sa sant Ousmane Diouf maa ngi leen nuyu di nuyu Mohamed nga xam ne depuis le matin ñu ngi nekk. maa ngi nuyu fan si fi teew yëpp di leen jégalu di leen jégalu nga xam ne taxawaay bi yàgg na trop maa ngi jégalu xam nga nga xam ne lii moom kenn mënu ko fay quoi xam nga. li ngeen bëgg mooy ndax Tapha Tine incha mu ngi ci dëgg ne leen ko indil incha waaw dëgg la ci problème mu wàññi poids bi moom ci laay jéggee xam nga ñi nga xam ne ñoom laa ko seqal yaakaar naa gisuma lu ma jaral may yokk sama poids instant bi moom moo gën a wàññi poids bi bi ci des mooy problème mu xam nga lam moom bëre la ak xeex xam nga entraînement yëpp pare ko di xaar lu bés ba laaj incha allah dinañ ko def damay ñaan yàlla ñi may ñaanal ak ñi ma bëgg ñi may ñaanal te gisuma leen nañu ma ñaanal suur bu tafaatin nekk rek man loolu laay ñaan ñaanuma leneen incha allah. waaw dañuy sant yàlla rek xam nga moom dafa xool fu bëgg-bëggam nekk rek mu wax foofu waaw man daal damay ñaan suur ba yàlla na ma yàlla may ndam si doom xaw ma ay xeex lay doon wala bëre li l'essentiel mooy naa am victoire rek l'essentiel bés ba lu mu laaj incha allah man Tapha Tine dinaa ko def incha allah waaw waaw Bawol moom saa bu ma jógee ñu jóg côté boobu maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm xam nga Bawol moom boo nee Bawol da ngay généraliser ñëpp kenn gënu ji maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal moom bu baax a no non mais xam nga lam moom lam moom da ngay siif quoi man moom dama ñëw siif xaja may sarax leen ndongo wala mu tibb ak dooleem jaar fu méttee métti boo gisee ponkal li ñu ma daj boole rek nga xam ne mooy loolu dama ñëw battre leen xam mooy loolu quoi jaar seen kaw jàll amul benn wala loolu loolu gars yi naan lu mu lëndëm la ma ne mooy puus jàll waaw moo xam ne rek. naqare bëreel naqare bëreel yëpp amul sol lii sa saa sol mooy jàng nañ yëpp teg amoon. comme problème boxe bi na xaw ma lan ñoo tàngee ci insisté mais étape bi daane naa fi nit ñu ne. quatre combats laa fi def kenn ku ne ni ma daane bokkul ak sa morom par rapport ak kii nekk Demba Diop buddi naa fa nit xam nga teq naa fa nit daane naa fa nit nu ne kon nag tey ko yeneen fenn ñu waaw pare nañu yëpp tey waaw maa ngi sant ñi nga xam ne moom la ñoom laa yem dool tey muy Sall ak ñoom Nguura nga xam ne waaw ñu ngi ciy jàpp déplacé depuis Tëngéej bi fii ak sama gars yi waa Sacré-Cœur Medina Baobab xam nga ak euh, waa Colobane centre bopp bi yëpp fan si Grand Dakar ñaari tali fu ñu mën a nekk daal waa Baobab bi Sacré-Cœur bi yëpp waa Cité Port ñëpp fan si fu ñu mën a nekk daal maa leen ziar leen bëgg ñoom ñëpp di wax ne kontaan naa ci ñoom vraiment.